Nicolas Jackson tout simplement extraordinaire Morata Shevchenko Didier Drogba Torres Crespo tout ces joueurs là jaar nañu Chelsea mais est-ce que def nañu si première saison treize bi en première ligue question baa nu bàyyi naa ak yéen ku nekk na dem gëstu ji ngeen xam ne Jackson li def c'est extraordinaire ñun Sénégalais dañu war a di encourager suñu joueur bu ñu ratee ñu wax ni rat nañu ñu critiquer leen dëgg la mais Nicolas Jackson dafa mérité suñu ay encouragement parce que dañu soxla attaquant bu melni ni Nicolas Jackson té jamono bi amuñu attaquant bu ñu mel si équipe bu mag bu tudd Chelsea amuñu ko fenn xam nga donc Sadio Mané jóge Liverpool amuñu ben attaquant bu nek ci équipe bu mag comme nii nii et Chelsea temps seen équipe mo ngi ñëwaat bu baax a baax en espérant que deuxième saison ce sera venir et tiré wul penalty le gars il te marque 13 buts sans tirer des penalty donc da ngay gis ne si histoire du Chelsea nga dem sax si Liverpool bi nga xam ne dafa jëndee cent millions euh, xam nga Nunez wala leen feneen ak feneen ay attaquants voilà kii c'est un prix moins bas mais il t'explose en termes de statistiques sans penalty en notre cas même dafa exploser li mu doon dugal ay bi fële ca Villarreal donc félicitations gaynde et deux du bi bii nice baax na naan moom bii ba lii moo ko xañ na tout ça va bi mais Sadio Mané loolu da ko jooytu ba sonn Nicolas Jackson donc si benn action rek donc profondeur boobu ma ne ko sama waa ji fa lekk nga duggalaat xam donc Chelsea explosé lii di West Ham ba tey ñoo ngi espérer parce que deux points euh, la ñuy xeex pour mën a am am am lii leen mën a yóbbu fële te ñoom ak Newcastle ñooy xeex ce sera compliqué pour dem Europe mais on va voir la suite en tout cas félicitations kontaan nañu aussi tamit si Nicolas Jackson li mu dugal deux bi man franchement li mu ko doon encouragé di wax ne di ko di wax ne na dem ba jeex. franchement, je ne regrette pas Nicolas Jackson.